ñaan bikum campagne électorale bi fa tàmbali niki samedi bi weesu ca min wi allah Dakar Presse yéen kaay ne ñaar fukki fan ak benn moom la candidat yi xam ngir convaincre dagaan baatu askan wi ngir ñu wotal leen ci wote député yi Le Soleil yéen kaay ne coalition ya candidat yi nag fa ñoo seetlu ne bés bu njëkk bi ku nekk ak sa stratégie ku nekk ak pexe ma nga lal ngir campagne ko yow seetal su fekkente ne ñii fa ñoo tànn def karawaan xam ñoo xam ne fa ñoo tànn def mitin xam ñoo xam ne point de presse lañ def xam ñu dem ci askan wi moo xam Amadou Ba Barthélemy Diaz Sonko ñoom fa ñoo jóg ak doole ñeneen ñi des nag seen campagne ni mu tàmbalee fa sedd l'observateur na gaay kay fa ñoo départ ak safara su tàng jir maanaam fa saf sàpp laas yéen a kaay dëggal ko ne wuré wa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay fan yi fay lambu ndax campagne ba tàmbali na la dépêche yéen a kaay ne man gis ne campagne bi ni mu tàmbalee daal fa desee saf fa xaw a sedd daal réew mi a kaay gis-gis de candidat yi ñoom ñëpp fa ñoo jóg ngir dagaana ji baatu askan wi ñu wotal leen wal fajiri yéen e kaay na man faa seetlu na campagne bi bés bu njëkk bi rek gaay yi fa ne Sonko moom nekkewut fi lenn lu may wax lu du dëgg fay sos rek Amadou Mame Diop ne nguur gu bees gii Sonko Jomaay fa ñoo wane seen télé dara xamuñ ko yor yor kaay ne dëgg-dëgg campagne bi démb bi mu tàmbalee ku xam seetlu fa ngay xam ne doole yemut Ousmane Sonko <laughs> fa wàccee cees ak département ba waxuma la mitin ba mu def biir cees mbooloo mu bëri ma nga xam ne fa hëpp ba jéggi dayo fa doon tuuru waaye caravane bi nga xam ne moom la Sonko def jaar kër njaayloo sàngalkaam bayaax jendeer daaru tayba tiwaawoon dëkk bu mu fa dem rek mbooloo ma fay génn bëri ba jéggi dayo topp ko foo tollu dégg Sonko Sonko ji mitin ba mu ko jeexalee nag ca biir Thiès fa ngay xool ba fa sa yam ci mbooloo mu bëri fa nga gis ay paax magam jëmm yu ndax mbëggeel am ci Sonko loolu yàllaa ko def info yéen a kaay na ko mitinu Thiès boobu Pastef amal Sonko xam ne Sénégal amul opposition ku jegi ñii haay xam nga ne ñu terewuñ maa nelaw de source a yéen a kaay ne waa Pastef yi fa ñoo wax ne lu ëpp cent cinquante députés moom lañ bëgg mbuqi gaa yi mbuq yu métti le soleil yéen kaay na ko Pastef kay démb dëgg-dëgg fa ñoo wane ne ñoo ëpp doole gaa yi mbooloo ma leen topp topput kenn donte ñeneen ñi nag ñoom itamit góorgóorlu nañ ndax Amadou Ba moom it fa wàcceek géejawaay Barthélemy Dias fa rajaxe biscuiterie ngandum ponkalumaa mu leeral lan moo tax mu nekk tête de liste ma nga ca levé seen camp campagne bi fañ a mag mbooloo mu bari ca biscuiterie yi fa yëkkati kàddu nag woo waa Dakar yi ngir ñu tànn tànneef gu baax le 17 novembre buñ jàppee ak ñi mu fañ leen di def li ñuy wax naan ñafal ñafal rek Amadou Ba moom ca géejawaay fa sàkku ñu bàyyi Bougane Gueye Dany mu génn ci kaso gi ak mboolam kuñ jàpp te politique a tax yéene kaay bi na Macky Sall moom ma ngay ñaax militant ya waaye ci whatsapp bi la de téléphone bi moom ñëwagul ba léegi ci campagne bi te yëf tàmbali na ka tàmbalee campagne am nag ca diiwaanu Mbuur muy Anta source a Amadou Ba ni ñuy kay fa ñoo yéex fa ñuy làmbaatu xamuñ dara Barthélemy Diaz moom tuuti ko doon mu rey Sonko ak Jomaay yàkk na leen kaddu yoo xam ne mu ci dal dee intercoalition sàmm sa kaddu ak jàmm ak njëriñam takku wàllu fa ñoo boole ñoom ñëpp seen doole def meeting ca biscuiterie fa lañ tàmbale yéene kaay bi ne si jamono jooju Madiambal Diagne moom fa wax ne gis nga Pastef fa nar a am mbetteel ci wote député yi fañ ko nar a mbuqi mbuqi yi métti ndax base électorale bu Pastef moo tax intercoalition bi fa ñoo wane seen bopp ak doole ju def ndax sénégalais yi lañ leen doon wax ak li ñuy def du benn anti valeur dig loo xam ne defuñu ko ah ba pare sonko nga ne le fa dalal ay responsable APR yu bëri yoo xam ne fa ñoo ràllee léegi ñëw Pastef Aliou Sall rakku Macky Sall moom fa amal mobilisation ca Guédiawaay ngir Amadou Ba le quotidien yéen a kaay ne campagne bi daal li ñu seetloogum mooy xam ne ñeenti ponkal yoo xam ne coalition ak parti yoo xam ne ñoo gën a fës ci campagne bi ñoo ci ëpp doole yow seetal Pastef ba nga xam ne léegi mi ngi dalal ay transhumance ñu wàlli yaan si ngir bañ ñu mbuqi ko Amadou Ba moom fa bëgg a peese xam lu muy jar ci bëtu sénégalais yi Macky Sall moom moom ëllëgam état la nekk Barthélemy Diaz moom fa bëgg a nekk koo xam ne ku incontournable la 24 heures yéen a kaay na wote député yii fay ragal mu nekk ndëgg sërëx de piège les secours yéen a kaay ne waaye campagne bi nag fañ cee tàmbalee gis fitna xeex ak yi ni mel yow seetal Abbas Fall ci candidat Pastef fi la bokk fa doon xamal démbu convoi wër biir Ndakaaru waaye ba mu yeggee ca Mermoz Sacré-Cœur fañ ko faa attaqué song ko ay militant am xam na ñun ca gaañ xam oto yoo na ne fañ ko tojate Abbas Fall nag nee na ñoom fa ñuy fayeeku te fa sàkku ci ay militan am nañ aar seen bopp Ablaye Sylla moom it candidat la ne fitna ji moom ay gat sa gat sa xeex yi xamul benn njëriñ jafe yëpp moo ñu ko andil kay ne Racine Sy tête de liste Alsar moom fa wax ne askan dal lañuy déglu le 17 novembre ñoy tànn député yu leen neex fal ko turbine yéen a kaay fa xey diñu xamal révélation ay xibaar yo xam ne Bougane fa ko wax bam jakarok enquête kat ya ca nañ ko jappé bàkkeel ak mbubam mañ jafe-jafe yam xamone ci loxoy gendarme yak ak yenen yi ni mel lolu la waxtaan ak ñom ke sik waxtaan tay ak l'observateur moy Aliou Sall rakk Macky Sall momit fa wax ne xelam dal dalut lu jëm ci mbiru Franck Timis magam ji Macky Sall bi nga xam ne ñu ngi wax ne bu ñëwee Sénégal fañ koy jàpp ak yenen yi ni mel info Yenekay, a kaay na ba paré nag nekk ca yi takk dere muy Ahmed Ndoye fa mel ni problème ya fa gën a yokku de yaw seetal Ahmed Ndoye daal permis ba mu joxe woon na permis la gars yi bi ñu ko xoolee fo ñoo gis ne keneen na ko moom léegi nag ka moom permis ba fa porter plainte Ahmed Ndoye leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja moo ne njiiti réew mi Bassirou Diomaye Faye fay tukki dem réewum Arabie Saoudite su fa bàyyeekoo fay jàll ba réewum Turquie lépp ngir ñoŋal rataxal jëflante Sénégal ak ñaari réew yi ni mel teral ko xamal Ndeye Ndiaye Sénégal fa jàpp Mauritanie ca finalu Coupe d'Afrique ba bit si sa kër footballu tefes gi fa ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee juróom benn bal ci benn 6-1 xaw tuut ñu dee record yéen a kaay moo ñu ko xamal ba te yéen kaay bi di ñu xamal ne classico bu mag a mag ba Barcelone dëgg-dëgg ay ndaanaan lañ Barcelone dëgg-dëgg ñooy saay-saay Barcelone dëgg-dëgg ñoo ñàkk yërmande ayow Barcelone fa dem dëkku jàmbur Real Madrid ne leen kaay ñu jàngal leen football tik carax-carax bii yu mel ni taw Lewandowski mel ni jinne ay làq ak mbëkk wu caxu la leen may Rafinha lonkal leen loobe ba Lamine Yamal fa yemale waa Real yi toj kër ga waa Real fa ñu mujj xolu di kajaate gaañee fa ngi leen di yërëm sax ndeysaan ndax Barça fa jàpp Real di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba mu dee fa sedd guy tàlli ñaret fa ko wan na ko maa la mën du ma moo tax faa la mbuqi ngàdd la wulli la ba a dee tas de supporter Real yi faa na ci ne reeruñ sax man de wax dëgg yàlla reer naa xol bu naqare de la fanano li may wax ni yeb mbuq yi yëpp faa xamut pex rek de ah directeur Alfayda Ibrahima gay fa ma artu ne suma waxun waxul yi fañ may dak waye nak garaawut nañ muñ rek ñun waa Real te féliciter wa Barça yi neexut ba neexut nak waye kërok Barça fa ñëw mën yéet tet tet ko mbàccum gerte de tuñu dede